c'est vrai am na nañu dég dégg ne demoon na seeti au PDPS les femmes transformation transformatrice de poisson ñi nga xamante ni day dañuy jëfandikoo jën yi afin di ko ñoŋal ba doomu aadama yi mën ko jëfandikoo mu am nag loo xam ni daf ñu jaaxal bu jëkk bi mooy moom ca njëlbeenu waxam ca jamono yooyu ñu génne daf daan wax ne moom candidat la ci maire de ville mujj gi bu ne candidat la à la candidature bu pare di kañu ni membre la ci secrétariat exécutif bu parti bi mu bokk alors que le bon sens mooy que ñun xam nañ ni képp koo xam ni ministre nga ci gouvernement wu président Macky Sall mais ci secrétariat exécutif bu parti ba nga bokk Omar Gaye, qui est ministre comme lui qui secrétariat secrétaire à bokk. Samba si pour ne pas <laughs> Samba qui secrétaire à à Le bokk Sababou, sababu président parti APR dit le président Macky Sall ce n'est c'est pas dû à un mérite politique dû it que man nañ ko natte nit ki li muy peese dafa am loo xam ni ay la yeween kilifa bu mat sëkk du ko doxe bu fekkee dafa bëgg diggaale ëllëg ak ay nawleem bu fekkee dafa bëgg ëll puisque dafa am laaj dafa am loo xam ni laaj baat jaru ko puisque bés penc ku ko gëmul doo dugg a jël ñun nag ñii ànd ci coalition bi nga tudd léegi ay nawle la def suñu bopp duñ ci diggee lu ñu manul duñ ci déggee loo xam ne amuñu yéenee def ko waaye duñu dem ci kenn di ko nax tëngeeñ nag dañu bëgg la fi newoon wànni ñu di ko dénk ay doomu tëngeej ñu koy dénk ñoo xam ni tëngéej lañuy yeewoo di ko dénk ñoo xam ne it xam nañu tëngéej réalité yi nga xamante ni askan wi moom lañuy dund ci biir seeni gox. koo xam ne ma suñ ko fal ci tëngéej koo xam ne poste poste yi mu am yépp poste nomination la waaye yow boo dul yeewoo ci ab dëkk nan ngay xame askan wala ñuy dund xanaa dañ la koy nettali waa ñun nag am nañu ñoo xam ne seeni kër fii lañu ne fii la ñu juddoo fi la ñu yaroo fi la ñu màgge fi la ñu fekke baax fi la leen baax fekk li ñu am mu bari ak mu néew ñu ngi koy bokk ak seen askan te yàlla rek tax nag ñu di ko def waaw kuy de dénkaane nag koo may ku la neex waaye dénkaane nag koo wóolu